Sow moom ngay gis nii Bassirou Diomaye eh, Faye moom moom mooy. da ngay dawaan de. lii yëpp sama kii bi. waaw nga jël moom am na ñaari jabar commandeur loolu. voilà d'accord d'accord voilà Bassirou Diomaye Faye. day dem voté ji. mooy eh nekkal fii. ñoom ñëpp nag ñu ngi daal def blanc euh, de même que Bassirou Diomaye Faye. voilà. mooy jëmee campagne bi. mu ngi ànd ak li nga euh, ak euh, Trondo ak Soxna moom la jógee di Bassirou Diomaye Faye nekk doomu bi nga xam ah, voilà. waaw voilà waaw oh, ñu noonu oto ba la kon ñu ngi noonu asalaamaaleykum dem mu ngi noonu fas yéene dem fi nga xam ne foofu la Bassirou Diom may fay fas yéene fas yéene après mun naa di Euh, Santox Niadiane bi nga xam ne euh, fële Bassirou Diomaye Faye fas yéene euh, voté ngi gis ñi nga xam may commenté yéen ngi gis convoi bi candidat Bassirou Diomaye Faye si si Ndiaganiao moo fa ci centre de vote bu Niadiane ci bureau numéro 2 la daal di wax voté oh ah, population bu jege ñaaw bi gis ngeen ñoom ñëpp nag génn daal di eh, topp voilà mu ngi noonu mu ngi noonu dégg ngeen lii ah, population bu Diomaye voilà. daal di amal population bu Ndieguèniao génn ak yéen Bassirou Diomaye Faye ñun ñëpp nag daal dañu daal génn ñu ngi dem centre de vote bu Niadiane nga xam ni wala euh, Bassirou Diomaye Faye voté moom nag euh, bi mu ñëwee euh, dafa daal di jubali ci kër famem parce que waxtaan ak ay parents waxtaan ak nga xam ne ñoo di ay parents ñu ñaanal ko mu doog a dem ci centre de vote bi daal di fas rek Euh, euh, voté ji ki nga xam ni wala wax daal di